waaw kon nag eh, jigéenu Kër Macodo yëpp kontaan naa si mobilisation bi sama tante Touré di wax ni rek bu ñëwee fii tamit dina nuyu sunu bopp tonton Tamsir ak waa kër mbokk la dëgg la man maay denc jarbaatam waaye lu jiitu loolu aussi day doon sama nijaay ndax magam a ngi di nuyu nag sama mbokk yi mère Fatou Mbaye xam nga man damaa bëgg géwél lool mais man ñi ñii wax li mu leen rawee dafa bëri man fi ne nii damaa nekk à l'aise waaye tëb rek a dal guddeeg allah élection yii moom nan xaar yeneen waaye yii moom dinañ gëj dinaa ñëw si li Makhtar wax si programme bi d'ailleurs looloo tax ñi doon dëgg programme fan yii laaj ma foogoon naa dina ko wax nee nañ sax dañoo plagiat méngale koog seen bos ñu ni boobu lañ copié waaye boo xam nga man fees man lu baax bañ man man bonuma man damaa xool si internet bi rek ma gis Amadou Hott ma liir ko sax programme am format bi rek dépliant bi ak dessin yi am ci biir nga wax ci li nga ci bëgg a wax ndax donc yaa 17 mais danoo génn si si rek pour parce que lépp pour liir bi mën a yomb ñu war a ñi ko doon tëgg cellule bi inspecteur Ablaye Thiaw ñoom Aline Diouf ñoom sama nijaay Assane Fall ñoom Lamine Ndiaye ñoom Biram Diom ñoom ñëpp ci doon liggéey buyee seen i jaay leen rek laa leen wax fii la nekk xombal maa ngi ci mairie bi juróom-ñaari xam naa domaine de compétence yi nga xamante ni moom lañ transféré liñ ci def jot mairie bi lan lay am ci recette donte am nañu yéene yi mu yokk te duñu bundu xatal nit ñi aussi xamnañ aussi tamit tay am nay programme ak ñoom ADM yooyu yëpp nga xamante ni day ñëw renforcer en réalité moom mooy sax fonds yi ngay utiliser pour mun nit dañ ni am nañu financement 20 millions chèques ñu ni waaye li dàq mooy soo leen falee ba pare wala da ngeen di lu man dama bëggoon ñu ni rek parce que boo nee boo leen ma falee ma am ko dafay renvoyé comme si mooy benn yoon la.

cinquante six millions am na ñaari financement PACASEN yoo xamante ni am nañ ci benn bi vingt quatre millions moom lañ tabaxee engare commercial bi. six millions ñoom xamul loolu parce que nekkuñu si maire bi léegi nga dëkk ak say mbokk bëgg dëkk maire bëggoo yor tax ngay wax wax wax yoo xamante ni Renoir. parce que lii yëpp bureau yëpp muy benn xam nga kon ñoom. ñoom bu nu bu nu muusoon bu nu demee ngàjjool naan am nan fa gaynde wala ne danoon laaj say mbokk ñu jox ni leen jox leen ma ñu jox la nga jox keneen bii pas soo leen nee jox leen ma pour man léegi nan lay demee ñoom mën nañ ma gañe foofu non xam nga loolu dañuy reere mais loolu du doon problème mooy li li ñuy def ñoom li ma metti loolu man mooy sama problème jël ay jigéen yoo xam ne ay ndey lañu ay jabar ay rak tout est possible lu ne sañ nga koo wax mais man sañ ma doon Serigne Mbacke mii sañu la taxaw fii ci xombal di digge loo nte ni sañu ko man ñi ma àndal kenn kenn du ko def parce que ku ko def fi nga ko defee lanaan la bul waxati loolu man mënuma loolu loolu laa xam